xaal ne diplôme yi am na ko te taxul ci koom ma xam ne bu doon ci laaraale ne kon daara mooy li xam ni moo mën a saafara jafe-jafe yi nga xam ne société bi ñu koy dund su ko defee kon daal sëriñ bi ngir comme waxtu wi daf noo raw lu bari mënoon nañoo Euh, jaaraat ci li nga doon waxtaane tomb par tomb waaye jàpp ne dana ko jàpp ndax wax dëgg wax ji leer na leer goo xam ne jotal na jotal goo xam ne di ci jaaraat tomb par tomb dina ko jàpp kon defe naa ne daal li ci am solo rek mooy ñu ñaan sunu borom mu defal nu ñu am dégg akuk topp waaw li nga wax daal yàlla na dugg ci biir xol yi te bu ci duggee yàlla nañ ko jëfee bu bokk yépp daal xam ne daara mooy li nga xam ne mënta ñàkk ci ab société bépp société bu ko ñàkk société boobu mooy dafay des gannaaw mënta jëm ci kanam kon faw société bu bëggee taxaw ñu jaar ci daara kon xam naa euh, ñu fàttali tuuti rek ci yoo xam ni danay am solo ñu di ko fàttalee bokk na ci lu mel ni taabal jee nga xam ne mi ngi ci bunt bi nga xam ne amul kuy dugg te doo ko romb taabal jooju ñu di ko bàyyi xel te xam ni li ko fa tax a nekk mooy jëmmi daara ji kon bu ñu wootee bisub daara ji li tax ñu woote bisub daara ji mooy pour jàppale daara ji pour taxaw daara ji ba daara ji gën a mucc ayib ndax def naa mbaar mii ñu nekk képp bu ñu xoolee war na ñoo xam ne daara ji laaj na ay taxawaay yu baree baree baree bare ndax mbaar mi mën naa gën a yokk mën naa gën a yàqu euh, ndax liñ fiy defee nii rek ku ne xam ne ni fii nekkul lu ñu waajal ngir loolu kon defe naa ne jëmmi daara ci boppam war naa mën a am loo xam ne nii lu mel nii buñ ko fi soxlaa di ko fi defee kon loolu ku ne xam na ne daara ci soxla na ko jëmmi mbaar mi ku ne xam na ne laaj na ay defaraat kazalika biir daara ji yépp noonu la demee kon nañ bàyyi xel loolu te xam ne taabal jee lu mel noonu moo tax ñu teg ko fa képp koo xam ne yaa ngi dugg si wala bi ngay dugg si fàtte nga ko ba toog boo ca mënee àgg barkeeloo fa la loolu nga bàyyi ko xel bu baax a baax a baax su ko defee am na benn ordre boo xam ne ñu ngi ko doon def ci bunt bi mu jëm ci wàllu jaar-jaari daara ji ak jaar-jaari Seex Habib ci boppam ak jaar-jaari mag ñu baax ñi nga xam ni jaar nañ fi am na benn benn ordre boo xam ne ñu ngi koy def ci bunt bi ci baax bi ngay romb booy dugg boo xam ne boo fa euh, jaaree defe naa ne danga fa fekk lu bare bari ci ay aasaar yoo xam ne aasaar yu am solo la yoo xam ni mat naa nemmi mat naa bàyyi xel bu baax a baax gannaaw loolu it mel na ne am na benn mbooloo moo xam ne dañoo sosoo woon ci biir daara ji ci ndigalu sëriñ Abdul Ahad mi nga xam ne moom la sëriñ Bachiru mii jëwriñu liggéey teg ci daara ji mu nekk ci ndigalam lañ ko sose woon muy mbooloo moo xam ne mu am solo la moo xam ne dara taxu leen a jub lu dul jàppale jàngalekat yi nekk ci biir daara ji ba ci biir loolu yàlla defoon na dajale nañ ab som boo xam ne som bu am solo la lu war a toll ci quatre cent cinquante mille yoo xam ne ñi ngi ko jëmale ci jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci biir daara ji ngir jàppale leen ñoom nag ñu ngi tàllal seen loxo mbooloo mépp képp koo xam ne man nga cee dugg su ko defee jàppale leen ci liggéey boobu ñu ngi lay tàllal seen loxo di la ci woo su ko defee ku ci bëgg a bokki ni nga ciy bokkee rek mooy sa numéro ngay joxe ak sa tur su ko defee boo joxee sa numéro ak sa tur weer wu jot ñoom danañ la woo soññ su ko defee 1000 francs ngay joxe su ko defee loolu la ñuy dajale delloo ko delloo waat ko ci jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci bi daara ndax ku ne xam na ne daara Serigne Habibou ni muy doxee mooy lépp luñ koy li ñuy def dañ koy def ngir jëmmi yàlla ñi fi nekk ñëpp dañuy volonté li ñuy def dañ koy def te jëmmi yàlla tax laajuñ ci ab dërëm kon ñooñu laaj nañ laaj nañ ku leen ku leen ku leen jàppale laaj nañ ku leen taxaw kon loolu it defe naa ne liggéey boo am solo boo xam ne liggéey mënu koo féete kaw kon mbooloo moom ñu ngi tàllal seen loxo ñëpp di woo ñëpp ngir ñu dugal seen loxo ci biir ci biir liggéey euh, mu mel ni ay kilifa yu bari ay kilifa yu bari teew nañ ci jotaay bi kilifa yoo xam ne xëy na euh, dañ ciy tudd ñenn ñoo xam ne bu ñu leen tuddee defe naa danañ yóbbaale ñëpp ndax xëy na bu ñu duggee ci lim ñëpp duñu matal duñu matal moo tax xëy na dañ ciy tudd ñenn ci kilifa yoo xam ne bu ñu leen tuddee rek danañu yóbbaale yeneen kilifa yi ci des yépp ku mel ni ki sëriñ Maam moom sëriñ Mouhamadul Fadil teew na ci jotaay bi ak ku mel ni sëriñ Abo moom sëriñ Abdul teew na ci jotaay ak ku mel ni ki sëriñ Habibu moom Cheikh Mouhamadul Fadil mooy ba tey teew na ci jotaay bi ak sëriñ Abdul Majid mooy ba tey teew na ci jotaay bi ak sëriñ Daam Mbàkke mooy na ci jotaay ak sëriñ Ahmadu Mbàkke moom ba tey mi ngi ci jotaay bi ak sëriñ Jiila Abdul Hakim moom it ba teew na ci jotaay bi ak sëriñ Modou Xabbaan Mbàkke moom sëriñ Abdul Hakim ak Seex Abdu ibnu sëriñ Jiili Abdul Ahad kon mu mel ni kilifa yi daal bokk nañ ci ñi nga xam ne ràññe leen ràññe nañ leen fi donte mën nañ ne bis bi moom bisub yoonu murid yépp la bisub islam bi yépp la kon ñépp am yéene teew ci bis bi ñépp am yéene teew ci bis bi ba tax na jàpp nañ ne ku fi teewul it ngant lu mag ngant lu rëy moo la téye waaye sa xol teew na sa yéene yi teew na kon ñi fi teew dañuy yóbbaale ñi nga xam ne ñoo fi teewul ñiñ ci tudd it ñu néew lañ rek ci ñi fi teew waaye ñi teew ci jotaay bi ku ne xam na ne jotaay bi ay kilifa yi képp ñoo fi daje kon ngir njëkkante ak waxtu wi rek dañuy daal jàll ci programme bi waxoon nañ ni bu euh, conférence bi jàllee dañuy jox ki nga xam ne mooy def commentaire mu jàllale commentaire am waaye moom dafa mel ni dogal na ngànt moom nekku fii kon xam naa euh, dañuy woo sëriñ Khadim Fall rek moom mu ñëw jàllale ay kàddu xëy na yoo xam ne da koy jàllale ci dunduk Serigne Habibou ay kàddu yu tënku rek yoo xam ne da koy jàllale ci dunduk Serigne Habibou su ko defee ñu jàll ci li ci topp Serigne Khadim kon fekkee jege na mën naa jege si jël kàddu gi su ko defee li nga xam ne waajaloon na ko ngir jàllale ko ci dunduk sëriñ Habibou mu mën koo jàllale su ko defee it euh, ñu di ko ñaani bu fekkee xëy na mën na koo tënk rek ndax comme waxtu wi moom dañoo bëggoon balay tisbaara lépp mën a sot euh, moo tax ñu bëggoon xëy na li des ci kàddu yi moom ñu di ko tënk ndax jotaay moom li ci ëpp solo li tax ñu woote ko rek mooy fàttaliku jëmm ju baax ji nga xam ni moo euh, sosoon liggéey bi yoraloon ko boppam doon ko méngool boppam defar ay génération yu wuute yu bari euh, kooku defe naa ne marqué na jamono marqué goo xam ne waree su ko fàtte kon kooku di daje di ko fàttaliku lu am solo la waaye fàttaliku ko ci lan mooy ci ay jikkoom ak ci turaas bi nga xam ne moom lañu bàyyee nu fexe ba bu ñu mujjee puso ba mu réer nu fexe ba na gën a yokk na gën a jëm ci kanam na gën a mucc ayib ndax ku ne xam na Seex Habib yéene ji nga xam ne amoon na ko ci liggéey bi ak foo xam ne bëggoon na liggéey ba fi kon euh, jàpp naa ne bu fekkee ne yar na ñim yar tàggat ñim tàggat wan leen ginnaaw bàyyee leen liggéey bii kon seen ndam defe naa mooy nu yokk ko yóbbu ko fu kawe fu kawe fa nga xam ne fa la leen ko bàyyee woon loolu mooy seen ndam kon te loolu nag maanaam turaas la boo xam ne umma bépp ñoo ko bokk waaye nag rawatina rawatina tariqa muridiya ñoom kenn gënu leen teyee kon ñoom ñoo ko war a gën a sàmm ñoo ko war a gën a gën a gën a yokk kon euh, loolu daal mooy li solo ci bis bi ñu bàyyi ko xel bàyyi xel ne ñun ñëpp amel nañ yi Abiibu aw sas boo xam ne amel nañ ko bor boo xam ne war nañ ko koo fay te mën nañ ko koo fayee ci lu dul ñu jàppale ko ca daaraam jii nga xam ne amutoon lu ko ko gënal ci kaw suuf kon ñu fexe ba daaraam jii mu gën a jëm ca kanam fexe ba mu gën a mucc ayib fexe ba eh, fi mu bëggoon liggéey ba àgg fa mu àgg fa kon sëriñ Xaalim Fall mën ngaa ñëw su ko defee nga yëkkati kàddu ñu jàll ci salaamullahi alali aleykum lay wax xadim fal bi mooy nuyoo fay leen ko salaamullahi ali aleykum lay wax xadim fal bi mooy nuyoo fay leen ko ku teew tey maa ngi lay ziyaara te lay ndokkee lit bu ngeen teewloo tey maxar bi lépp géew ñaaru ci soosee saa yit ma delluwaat raaxaat ko kanug woy lay saa njibal fasoo koo tiire ci seen biir xol yi ba ngeen ne ñokki ñukku fu gar yëmboo bukki njur ne yollet yooru fu mbër piir tàbbee ci géew bu tëggul bàkku te xit kum tax jaawale fi ak unk ak njàngoor bu njàngoor màccee nga xam ne lii du unku xadim fal ibnul amin la eey bul sóoru lu jaan ndaw ndaw kum ne cuut mu aajee lugg salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bu ko defee xam naa xasiida gi dafa xaw a gudd ab taarix la boo xamante ne dañ ko doon taarixal sëriñ Xabibu radiallahu anhu tuddewoon ko ar rawdul xasib fi siirati cheikh al Habib xam naa dañ ciy jukki pari bunt yu gàtt rek bu ko defee dañuy jukki bunt bi nga xamante ne ci lañ doon wax sifaatuhu wa axlaaqu wax ne sunna la daa ngiroo defoon quraanu muy wéeru waayam na moom suñ xabibu sunna la daa ngiroo defoon quraanu muy wéeru waayam tax na mës la daanu julli la daan dalloo di wéttaloo xuraan zikkar la daa añee ci leer yàlla di naan fu mu toll moo ngi woor du faat mbooloo ma jàkka ja lay jullee du xotti wor ma day fogi guddeem naafilaa di nelawam yàlla di itteem weeru koor moo di mbégam saabu teroo xool ba ne guyyu loo ko laaj mu lambu jox la la mu daj it du ko xaaj tab gaama yéem gàccal na waame wax seet la wow bu dottee xol yi bég bay dukkat xàmmeewuloon ku ñàkk mbaa ku womal ku laaj mu jox xàmmeewuloon naar ak pël bur yàlla képp la di seet ci jàmm ñi du tooñ du lor bàyyi ma bay lor nit ñi ku mu taseel jariñ la ku mu jaxasool nag jeexital jaw ma ñàkk koo dindool ku gis ko waaru ku mu gis yërëm la def la ne doomam ku ko seen mu yar la ku bañ mu bokk ku bañ mu bëgg ku ko foñ mu jokk ku di ko xeeb ngir réer mu jël la fonk rëyul sewul gàttul deful woon am njool yaram wadaayam taxawaay ba jekk lool kanam nga leer gët ya di saf ay lumière kawar ga jekk jekk jëf ba leer a leer ku bëgg xam nam mel na xool Cheikh Bamba nam mel la mel moo yor xaqiiqa Bamba buy dox du gestu du jatoo ko caaxaan du toog ba tàllal ay ndëggoom mooy ndaanaan du gëdd nit du jëw du wax lu mu xamul du yàq der du xaste moo mën a jubal siisul nayul xatul iñaanul néegul du war du rambaaj doxal liin wa ñaawul siisul nayul xatul iñaanul néegul du war du rambaaj doxal wa ñaawul li lee taxoon gët yi sawar ci gis ko xol yépp dëgmal ko sëriñ si naw ko cheikh Moustapha fonkoon ko nawloo woon ko wóolu ko loolu ngir na daam defoon ko mas na ko wax ne dafa am nag fukki gaa yoo xam ne bamba daf ma leen a dénk waay te ba ma xoolee man kaydu wa sawtur moo nga ca lee tax ma jàpp la man bu wér te ba ma xoolee man kayit wa sawtur moo nga ca lee tax man ma jàpp la bu wér sëñ Fallou am na ku mu masa wax ne xam-xam bu ànd ak barke wér ci fii ne kër sëñ Habibu rekk rekk laa ko gis yal naa fa sax ba la fa ne ma man ca mos sëriñ Basiiru moom xarit la ko defoon defoon ko ndi ci lépp lu mu doon Seex Abdulaat fonkoon ko def ko ab sëriñ daa ko hadi yàlla yàlla buur bi moo xereñ dénkoon ko boppam ngir rafet njortu ci moom ku bëgg yàlla bañi xejjam yaaka juum Cheikh Abdou Qadir Ilimani Touba faghfir bi jaahihi lana dunuba jëmmam la daa xoole sëriñ bu mag ba ka sañc Touba daam magi Masamba Cheikh Salihu defoon ko wéttal sopp ko moo tax ba Cheikh Jili wéyee mu tànn ko tabb ko def ko muy imaam yi dëkk bi giñ naa ne neex na Bamba neex yonente bi sëriñ bu nam ko def moom dafa fës ngir seen diggante leer na képp ku di gis defoon na ko xarit taxoo woon ak moom dénkoon ko boppam daa ko jéem ciy jikkoom mësula bëgg a takkaloo ak jëmmam fonkoon ko soppoon ko di wax ko léppam mas na ko wax ne bu ma yàlla taggoon keroog ba muy sàkk ma kon ma ne ko woon def ma mel ne Seex Habibu Mbàkke ngir aw meloom wu yéeme wañ koy bàkke moo tax sëriñ Muusaa Ka wax ca way wam doon lim njabootug Seex Ibra baayam min baadi ma nakaxa soxna fal sëy wala alayhi xarajun wala shay walada minha awalan abdul majid maa abi bakrin fa faraqa atit baadahuma naalat xabiba allahi wa huwa aalimun azimu ljaahi baadahuma naalat xabiba allahi wa huwa aalimun azimu ljaahi wa salla wa salla wa sallama ala sayidina muhammad mu mel ni tabarakallah indi na nga ñu ci jikko yi sëriñ Habib loo xam ni moom it mel na ne mëntoon a ñàkk fàttaliwaat nañu jëmmam ji bu baax a baax fàttaliwaat nu meloom yi fàttaliwaat nu ay jikkoom mel ne loolu it am na solo lool ci jotaay bi kon mënu ci woon a ñàkk kon yàlla na yàlla def la mag te gën a leeral sa xam-xam te gën laa barkeel koo xam ni moom it miin nañ ko ci jotaay yu mel nii tey saa yu ñu déggee kàddoom rek kàddu yu am solo lay doon kàddu yu am njariñ muy Cheikh Mouhamadul Fadil Bousso euh, ibnu Cheikh Hassan Bousso Euh, di doomi boroom xam-xam bu mag boo xam ne buñ xam ci yoon wi la kon moom lañuy ñuy dal di woo mu ñëw moom it sànni fii ay kàddu su ko defee yoo xam ni euh, da koy ñambaas rek ci li nga xam ne moom lañ fi doon wax léegi gën a ndaw ñi waaye gën ñoo ñaaxaati ci taxawaay yi nga xam ni war nañ koo taxaw ci daara taxawaay yi nga xam ne war nañ koo taxaw ci daara ndax comme daara rôle boobu la am ci societé bi kon ñu nit war nañoo may taxawaay yoo xam ne war nañ koo taxaw ci moom kon xam naa dañ koy dal jox kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi ñoo ngi yëkkat sunu kàddu muy kàddu yu nuyoo ak cant jëmale ko ci mboolem ñi nga xam ne nii ñoo teew jataay bi ak ñi nga xam ne nii jataay bi yitteel na nuyoo bi ak cant gi nag ñu jiital ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa alxalifatul am lil muridin ñaanal ko sunu borom yàggal ko fi te kàttanal ko te mottali ay yéenem nuyu bu baax ziyaar bu baax mboolem njaboot Seexul Xaddim ak mboolem njabootu salafu saalix bi nga xam ne ni ñoo teew ci jataay bi bokk ak ñun bis bi di ko dundal di jël nuyoo bi ak ziyaar bi teg ko ci loxol Serigne Seexuna ak ci loxol Serigne Basiir mi nga xam mooy saytu liggéey bi ñu jot li ñu ko mboolem ñi nga xam ne nii ñoom lañ seqal liggéey bi di yu baax waa daayira xuddaamul diini islaam yi ci jéego yoo am yi solo yi nga xam ne ñu koy def ngir dundal liggéey bi nga xam ne ni moom la sax moo xam suñu ab yu bàyyi yoon te muy jàng ak jàngale ak yar doomi jullit yi ak teg leen ci yoon di leen ñaan suñu borom gën leen a kàttanal gën ñoo kàttanal ñun tam ba taxawaay bi ñu ci war a taxawee ñu mën ko ca taxawee di sant baax sëriñ Saliou ak sant ñi nga xam ne lañ fekk ci taabal ji waaye di sant bu baax sëriñ Mbàkke mi nga xam ne nii moo doon def waxtaan wi te matale lool xam naa dafa tolloog ne sëriñ bi nga xam moo waroon def commentaire ci muhaadara bi conférence bi dafa mel dafa am ngànt nu sant ñu ñu def ci tuuti ay commentaire xëy na euh, dañ ko dul mën a ñàkk dañ ko dul mën a gànt ndax mbir boo ci bokkee bu ñu la joxee kàddu te mënoo ci lenn lu dul kàddu moom kàddu ga bokk gàntoo day mel ne kon dangaa mën mënta def dara te mbir mi nag yaakaar naa ñi nga xam ne nii amuñu kàttanu def yàlla dénku leen alal joo xam mën nañ koo def ci daara ji waaye borom mën na am dénk leen xel moo xam ne nii mën nañoo soññee ak yeete ak xamle daara fu mu jëm ak lu ko tax a jóg loolu tam ba tey liggéey bu daara ji soxla la kon maanaam mooy ne ku nekk am na taxawaay boo mën a taxaw ci daara ji bu dee ci xel ak xalaat baax na bu dee ci ci def baax na bu dee ci kàttanu yaram goo ci def baax na waaye ku nekk am nga loo ci mën a def ci jéego boo xam mën nga ci taxawee kon foofu rek la waxtaan wi dugg ni ma ko waxee nag waxtaan wi suñu mbàkke def léegi waxtaan wu matale sëkk la ci fànn yépp ndax lépp lu daara di taxawee day mel ne gaaral na ko indi ci ay xalaat yoo xam ne nii leer na nañ ñu nag xëy na bu ñu ci def commentaire li ñuy taxawloo tuuti mooy am na lu mu tudd ci biir daara tudde ko thawaabit wa alkutaab te mooy li sax nga xam du soppiku ak li nga xam ne ni mën naa soppiku ci daara loolu defe naa tomb la boo xam ne nii sëriñ bi waroon na cee taxaw bu baax a baax gën koo yaatal ndax bari na li ñuy jàmbat ci daara ak coow yi ciy jóg jàppal bàyyi lu ci baree bari dañoo xàmmeewut li nga xam ne nii mën naa sax mënta soppiku ak li nga xam mën naa soppiku ci daara loolu dal na ñi nga xam ne nii ñoo ne ci kaw war a saytu waaye itam dal nañu ñun ñi nga xam ne ni ñoo ne ci daara yi di jonjoo liggéey bi dafa bari yu ne ci daara yoo xam dañoo jàpp ne warut a soppiku te mën naa soppiku loolu kon defe naa leeral ko dana am njariñ lool. li mënta soppiku ci daara mooy jàngal nit ki alxuraan ba mokkal ko jàngal ko xam-xam ba xam diineem yar ko yarub loolu moom mënta soppiku ci daara daara ji ko deful rek mooy taxawaay bi nga waroon taxaw des na kon loolu mënta soppiku ci daara waaye xam ne nii nag moom. moom day ciy dugg ci biir yu mën a soppiku la bu baax a baax a baax li ci dal mooy ne léeg gis ñi nga xam ne nii xamuñ ne ay sawaabit yu sax am na dañuy jàpp ne xale bi bu mokkal bu wàccee alxuraan wala mu miin rek doy na wala yu mel fekk na mission daara mooy xale bi mokkal alxuraan xereñe ko ci fànn yu baree bari waaye itam xam diineem ñu yor yarub man doon ni ñeenti a soppiku jiitu mooy condition yi xale yi nekk ci biir daara yi loolu mën naa soppiku lool ndax ñu bari ñun dañoo gëm ne xale bi daa war a tuumuranke door a door a jàng alxuraan déedéet tuumuranke ak jàng alxuraan jotewuñ dara boo demee ci yeneen réew yi da ngay gis ñu mokk alxuraan lool bu rafet lool te mos ñoo jaar ci mooy condition yi xale yi dundee kon ci mutaxayiraat ci la bokk bokk na ci mutaxayiraat yi mën a soppiku da mooy bi ñuy jàngalee yoon bi ñuy jàng ba jàngal xale bi alxuraan mën naa soppiku lool ndax wàllum pédagogie ni ñuy jàngalee xam nañ ne dañ ci def ay gëstu yaatu yaatu di ko beesal di ko gën a dëppaleeg ni xale yi dundee di ko gën a dëppaleeg maanaam xelum xale ni ñuy yokkoo loolu mën naa soppiku lool ci misaal mu gàtt rek jàpp maanaam nga xam ne def ay weer basin door a jeex nga door a ñëw ci bi as mi jeex nga door a a ñëw ci xëcc door a ñëw nga xam ne da nga jël lu mat at daanaka balaa xale bi feri ji loolu mën naa soppi mën naa soppi bu baax a baax léegi am na méthode yoo xam ne nii boo jaaralee xale bi ñaari weer ñaari weer maanaam mën naa fexe ji dafa ji day rafet lool lu mel ne basin ñi loolu méthode yu bare bare jàng duñ ko léegi wax dëgg yàlla loolu lu mën a sopp ko la kon te dana tax xale bi li muy def ci daara ji gën a wàññi waaw ala sabi misaal yi ñu wax tariqat sawtiya benn la ci yoon yooyu nga xam ne xale bi du jàng basin bu ñëwee maskara nga koy jàngal bi as mi ci misaal ci mel noonu lay tàmbale ñaari ba ay kalimaat ay baat ci ngay tàmbale moom bu lool loolu lu lu lu mën a nekk la xam nañ bu baax a baax te mën naa soppiku te xale bi dana gagné temps ci li muy def boobaa loolu kon ci yi mën a soppiku la bokk yeneen yi man a soppi kon mooy xale bi ni ñu koy jàngalee maxarajul xaraf araf bi fu muy génne araf bu nekk ci arab dafa am waaye xam nga xale bi léeg-léeg ko jàngal xa ak xët ak xa léeg-léeg yi moom ràññee ko day jafe lool lool da leen di jaxas moo tax nga naan ko xaaguñ xaa noonkat xaaguñ tomb xaa nangam ak yooyu ay ndigal yooyu yooyu xëy na ñu ñoo ko ci dugal waaye mën naa sotti bu baax a baax te yi nga gis xam ñu koy jàng di sonn xale yi maxaar bi xuruf rek bare bare ci boole yi mën naa sotti ko ndax cha ak sa ak so ku nekk xam ne ni bokkuñu boole dañ la ci sonal lool naan ndax cha nangam sa nangam di xale bi di def temps bu bare bare naa sotti kon méthode bi ñuy jàngalee mën naa sotti bu baax a baax a baax loolu tam kon ci mu tax a yëwaat mën nañ ko ci dugal lu mel xale yi ñuy dundee ci biir daara yi loolu mën naa soppiku ci misaal tey ñaari mbir moo mën a am yow nga mën a yor daara ji doo laaj kenn benn dërëm waaye condition yi xale yi war a dundee mën nga koo matal nga di ko matal loolu lu baaxut su fekkee gëm nga ne mënoo loolu nag la war ci xale yi nga teg ko waay jur xale yi bu ko defee daara ji mën a tegu ci yoon waaye léegi nga dem ci daara joo xam ne nii maanaam nekkinu daara ji daf lay jaaxal maanaam ci wàllu set ak ci wàllu bi ni mel ak da lay xaw a ndax day nekk yoo xam day metti lool la nga dugg ci barab boo xam ne nii yow boo miinu daara boo fa duggee doo am ñaari min maanaam xet gaag tàngoor waag yëf yi moo lay dàq da nga daal doo génn te loolu jotul dara ak njaay bi loolu te mën naa soppi condition yi bu fekkente kon kii sos daara ji mën na ko mu leer ko ne moom mën naa yor xale yi condition yu baax te du laaj kenn benn dërëm loolu liggéey yàlla la liggéey bi yàlla féetu kaw waaye nag kenn forcé wut kenn ci ne par force bu ubbi daara tey ñu bari jàpp ne ñoom comme sama bàyyi da doon jàngale wala sa maam ci jàng alxuraan lu taxawoon man damaa war a sos daara te amoo man man yoo ko mën a sose boo ko sosee la indi mooy yóbbu xale yi ci condition yoo xam ne nii du gën ci ñoom bu ko defee ñu nekk tuumarak bu mat sëg loolu mën kon kii sos daara ji moom mën naa mën a xool naa koo yor wala mënuma koo yor ku nekk xam nga sa bopp ak li nga mën xam nga ko bokk na ci mën a soppiku tam lu mel ne yalwaan yalwaan léegi da ngay dégg ñun la daara ak yalwaan kenn mën koo tàqale mën nañoo tàqale ko bu baax jotewuñ dara sax ndax maanaam bu njëkk kilifa yi ñu xam nit ñi ñoom bu ñu masaan ne ci daara ñun bokk ñoom ne ci daara ñoom duñu yalwaani si duñu la tax di yalwaani day mokk alxuraan moo lay xamal ne nit mën naa bañ yalwaan te du ko tey mokk alxuraan kon bokkul ci sawaatu daara bokkul ci sax ci daara yii mhm. a sot dañ ndax wax waxtaan bi am na solo lool mën nañoo dugg ndànk te toog te wàññi wàññi wax ji wax ji kon nañ ko bàyyi xel baax a baax. kon ñu ngi woon ci mu dafay daal di ba tey rek yalwaan moomu lu mën a jóge ci daara la te daara dox te ku nekk xam na ne yalwaan moomu ubbiku bu ubbiku moo waral tey lu baree bari ñu koy wax daara te daara yi mel nañ war a mel noonu mën naa am loolu amu waaye nag fekkee da gis xale boo xam ne nii. quatre di ma matin ngay yeewu dem ci garage yi fekk fa xale yi ñuy wëndeelu guddi nga fekk leen ñuy nelaw ci trottoir yi nekk condition yu méttee métti bëccëg nga fekk leen ñu yalwaan xale boobu doo xam ban heure lay jàng boobaa tuumaal daara dafay yomb kon yalwaan ni ku nekk xam ne ne bokkul ci sawaabitu daara ci mu a soppiku ci la bokk te du te du tee njàngale ni di doxee ni mu war a doxee kon loolu itam bàyyi xel dana ci am solo lool lool ndax ñu bare na dañoo jàpp ne mënoo yor daara te xale yi duñu yalwaani te fekk na ñaar yooyu moom mën naa am yàgg nañu waaye mën nañoo tàqale ko bu baax a baax yeneen na ci ba tey lu mel ne ñu ne daara ji dañuy jàngale di fayu loolu ñu xam ne àdduna moo koy doxe noonu bu njëkkoon xale yi daawuñ fay waaye nag booba daara ji daan ne ca àll ba ñu am ay tool yu mag a mag xale yi bu ñu xëyee dañuy dem bu nawet jotee dañuy dem tool di bay bu noor bu nawet bu noor ñu sàkketaat kër gi rabat defar néeg yi ba mu ñu dugg ca biir semb sàq yi mag a mag di ko dunde loola xeetu fay rek la ndax loola ci la ñuy dund sëñ bi leen di jàngal ci la yor njabootam néeg bi muy dëkk ñoo koy defar lépp ñoo koy toppatoo loola kon daanaka fi ne mooy remplacer léegi li am léegi léegi nag ñun àll boobu amatul nit ñi ci taax yi la ñuy dund boo yoree daara ci taax yi nag te xale yi duñ dugal dara te yow yoroo dara daara bi a dox kon bu fekkee da ngaa nekk ci yoo xam ne nii mën ta ñàkk nga laaj waajur yi dara il faut que nga dajeeg waajur yi xamal leen ne jàng dafa am dafa am njëg njàng mépp dafa am njëg bu ko defee nga xool la nga xam mooy doxal daara ji nga séddale ko waajur dong yi bu ko defee ñuy wàccoog moom yow tam nga mën a wàccoog li nga war a ñoom waaye dañuy faral di wax ne métier bu la mënta yor doo ko mën a yor mépp métier moo xam ne nii mënu laa yor doo ko mën a yor da ngay gis fii sama classe bu bare bare dañuy am yéene ubbi daara nekk ñoom ñëpp da ngay xëy xëy dégg ñu ne tukki nañ dem nañ moodu moodu ji wala dem nañ defi commerce ndax daara ji mënu leen a yor te dañu am ay soxla ak yitte te nit du dund yu mel noonu kon yooyu tam ci mu tax ay yiraate ci la bokk kon xam naa yu bare bare daal sëñ bi waaye loolu dañ ci doon barkeeloo daal ñu xam ne sëñ bi li am na solo waaye yaakaar naa ne def jataay boo dañ ci waxtaane moom sawaabit ak mutaxayiraat yi am ci loolu moom sëñ bi war gën a ñëwaat gën ko yaatal bu baax a baax mooy sax ak yi mën a soppiku maa ngi jéglu bu baax a di sant di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wattamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaara yéen ñëpp di leen balu xaq di ko bale tey ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu booloon ak njëggal te jëggal xeetu Seydina Muhammad wépp ci barke sëriñ bi noo ngi nuyu di nuyu itam sëñ daara yëpp di nuyu way juru dong yeeg sëñ daara yëpp te di leen balu xaq tey ñaan suñu borom mu fay ñëpp aw yiw ci jéego yu nu séq ngir wuy si woote bii te yàlla rek tax ak alxuraan noo ngi dellu di leen nuyu ci turu daaray sëriñ Habibu radiallahu taala anhu bu ñu nee daaray sëriñ Habibu nag bàyyiwul jenn daara ju mu yilif daara yi daara xudus jii ñu toog di wax ak yéen daara yi Touba Madiana ak daara yi Touba Mbul ak daara yi Touba Mbacke Kajoor yépp ñu ngi ci biir kàddu googu noo ngi leen di euh, fàttali itam ak di leen leeral ne Euh, daara sëriñ Habib lim bi nga xam ne moo fi nekk jamono jii da doon lim boo xam ne ñu ngi fi jàng mu ngi toll ci six cent soixante-treize personnes juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett li fi ne ci mokkal ñu ngi toll ci cent seize téeméer ak fukk ak juróom-benn li fiy bind kaamil ci jamono ji ñu ngi toll ci dix-huit muy fukk ak juróom-ñett li fiy ci jamono ji mi ngi toll ci quatre vingt juróom-ñeent fukk ak benn jàngalekat yi ñu ngi toll ci ñeent fukk ak ñeent ñoom ak seeni mustaxib ñi fi mokkal ren ci diiru at mi ñu ngi toll ci fanweer ak juróom-benn loolu mooy li ñu di leeral ci wàllu daara ji noo ngi dalal xel itam mboolem kuy woy juru gone ci ne seen njaboot gi fi nekk jàngalekat yi leen yor di leen taxaw ñu ngi def seen kem kàttan te yàlla rek tax ndax amul jenn daara ci daara yii sëriñ bu yilif joo xam ne mi ngi yu benn dërëm di ko laaj benn wayjur mbaa ku kilifteefu gone bu doon kon la jàngalekat yooyu def lépp yàlla rek tax ni di ko def yàlla moo mu tax nuy def nag xam nañ ne ku sonn dana la fay moo tax ña sonn seen kem kàttan ñëw leen koy leeral bu baax a baax taxawaay bi jàngalekat yi war am ñu ngi koy am bu guddeeg bëccëg subaa ngoon taxawaay bi gone yi war a am ñoom it ñi ci góorgóorlu seen kem kàttan waaye buñ dollee it ñu jël taxawaay bi woy jur yi war a am it wax dëgg ñoom it gàcce ngalaama waaye buñ dollee it ñu jël ñoom it comme niñ ko sàkkoo ci gone yi ginnaaw bi ñu leen leeralee liggéeyu daara ji ak taxawaayam ak fi mu toll am na nag ay jàngat yoo xam ne it euh, sëñ daara yi ñoom it ñu ngi koy tawat te bëggoon way jur yi bàyyi leew lañ ci xel bu baax ngir ànd kook ñoom ndax ki ngay liggéeyloo tamit sonn ci liggéey ba ngir yàlla bu sañoon liggéey ba dana mel na mu war a mel ci biir mu mel ni mu war a mel dana am taxawaay boo xam ne ki ko war a melal dana ko soxla te bëgg loolu ko ci dimbali te kenn jiitu ko ci yéen ak way jur yi nga xam ne ñooy jàngul bu dee ci jàmbar yi daara jii ñu nekk di wax a yéen muy daara sëriñ Abibu daara Xudóos te jëwriñ ji di sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Seexuna bokk na ci njàmbar yi nga xam ne mi koy jàmbat muy ay téléphone yoo xam ne gone yaa ngi ko yor te la bu daj kat danañ ci ñëw insha allah bëggoon way jur yépp xam ne mbooleem ku fi nekk loolu it maa ngi yàlla ñu diglu ma ci bu baax ndax lu ma ñor la mboolem ku fi sa doom nekk te toll ci njàng nga yëg ko ak nga ñàkk koo yëg na nga xam ne mu yor téléphone suñ gàllankoor la nun ñi ngay liggéeyloo te lañ ca man nun jàngalekat yi it ña ngi koy def suñ kem kàttan waaye jàpp nañ ne gone moom ñaari barab rek la am muy barab bi muy jànge ak barab ba muy dellu bu jàngoo ba noppi bu fekkee taxawaay bi war a am ci bi muy jànge ma ngay am nam war a amee bu dellusee fa muy dellusi bu jàngee ba noppi taxawaay boobu de am nam war a amee gone gi duutu am pexe ndax bu fekkee niñ koy wàññee ci daara ji noonu les koy wàññee ca kër ga ñaari barab yooyu rek lay jëm kon day mel ne ñu koy jubbantee ko taxawu benn gis-gis ñoo ko bokk benn taxawaay ñoo ko bokk benn yëg-yëg ñoo ko bokk bu boobaa gone gi jubbanti ko ak teg ko ci yoon day day yomb waaye bu dee bu ñëwee ci daara ji sëñ daara bi def li mu man ngir mu tege ci aw yoon te bu delsee ci kër ga waajur yi bàyyi ko ci sagoom lu sëriñ daara ba liggéey bu génnee mu yàqu nu bëgg nag yéen waajur yi ngeen am yëg yéeg bi sëñ daara yi am di ñu dimbali ci jubbanti googu ñu xam ne gone yi jàng di yor téléphone lu nu metti la moom suñ daara yi loolu sëriñ Muntaxa mi ngi koy tawal ci jine fii sëriñ Seex ma nekk Madiyana ma ngi koy tawal man mi nekk Touba Mbulit maa ngi koy tawal nun ñëpp noo bokk jàngoro ji foofu lu nu naqari la lool mu ne am na ci gone yooyu jàng nañ ba mokkal waaye seenum njàngum xam-xam duxut ndam war a doxee am na ci ñuy góorgóorlu te la indi gàllankoor boobu mooy sëgg cib dars muraajaa ko lu tolloog fukki minute ak juróom sëgg cib ñaari waxtu mu ne fu gën a yomb gàllankoor mënta weesu lool te gàllankoor bu méttee métti la boo xam ne sëñ daara yi ne fii ak yi ne ci yenn daara yëpp ñu ngi koy yëg tëluñu dara ndax téléphone ñu dara ndax ay connexion ñu dara ndax whatsapp tëluñu dara ak yu mel na ñoom da nga gis ko war a bind kaamil sax la mu war a bind du mat ngir téléphone da nga gis ko war a beqi la mu war a bind dana am gàllankoor xanaa ci kaw sëñ daara ba taxaw temm rek mu door a sottal la muy sottal noo ngi leen lu nu gàllankoor la te bëgg nañu waajur yëg ko te fexe ba dimbali ñu ci taxawaay bi nga xam ne moo ci war ci tawat yoo xam ne suñu muntaxaa mi ngi koy tawat mooy tubéy jiin yi nga xam ne ñu ngi koy indi ci daara ji sëñ muntaxaa ñett la ma yóbbante woon téléphone ak jiin ak mayo ba ko ñeenteel mooy taxawaayu jur yi waaye ñett yooyu laa jiisal ba jur yëpp xam ne daar ji amu ci yitte te bëgg nañu dimbali ko ci bëggatuñ ku fi ñëw di indi indi tubéy jiin bëggatuñ ku fi ñëw di fi ku fi ñëw it indi téléphone loolu sëñ Muntaxa mi ngi koy tawat noonu yi lañ koy tawat te noonu it ndax ñett yooyu yëpp bu ci nekk waaw da ngay tënk rek waaw. waaw mbokk yi ñu dimbali ci wax ji ñu dimbali wàññi kàddu yi ñu dimbali wàññi kàddu yi ndax barab yi ku ne xam na ne ñaari kàddu buñ fi jógee rek day indi désordre kon nañ ko a baax te wàññi ko kuy ñu mënta ñàkk waxtaan nag ngay wax nga ji ko dee nañ ñu dimbali rek ñu tuuti ñu ba des na incha allah. bi ndax ñoo koy liggéeyloo te jumtukaay bi mu mën a jëfandikoo ngir mën leen defal liggéey bi bi ñu koy liggéeyloo yaakaar naa bu leen dana ko soxla ngir mën a def la muy war def ginnaaw xam ne ne loolu lu koy gàllankoor noonu nag gàllankoor boobu moom jàpp naa ne wenn wajur wuru ci am yitte mbirum téléphone yooyu ni ko suñu doxaay tawate noonu la ko suñu jox naa tawate noonu laa koy tawate man mii waaye nag néew nañ ci doole lool te bëgg nañ wajur yëpp jàppale na ci mbirum col gi itam noonu loolu ñu wax ci col gi ndax yooyu ak bëgg lay def ci gone gi te bëgg ga day am leneen lu mu ko yitte wool lu mu wurte yitte woo koo xam ne foo toll may ay maillot moo ne ci boppam Ronaldo Ronaldo xam nga tur yi nu mu tudd façon maillot bu génn bu nekk mu am ko bu ñëwee daara ja am na ci ñooñ danañ sëgg seen morom beqkat duñ ko may sax mu beq mbel mbel mbel diw bit bi mu dugal bii bit bi ni ko passé coffran bi dekk loolu la ñuy topp ba kooku sax tudd xam lu muy def waxuma laa koy nett li te xam lu muy def moom te la ko indi mooy maillot bi mu sol di wane bëgg bu mu bëgg suyër boobu kon suñ Muntaxa nee na mbirum mayoog ji nag téléphone bëgg na waajur yëpp yëg ne du yitti daara ji ñu jàppale ko ci loolu yi noonu la ko suñ Seex naa tawate moom it ci mut yàlla yi lañ ko tawate noonu it ca Tuubaa ñu nekk la ko nag te noonu ñëpp nu bokkaat ko mooy taxawaayu waajur yi nga xam ne ñooy jàngulu ndax daara ñett rek ko muy kiy jàng kiy jàngale ak kiy jàngulu ñett ñëpp ku ci daa am taxawaay bu la war kiy jàngale na mën a jàngale te nangoo jàngale kii jàng na nangoo jàng na nangoo tege ci aw yoon waaye kii jànglu it na xam ni ñuy jàngloo mu rafetal aw njànglu yi nam te ñu ngi yëg ay jafe-jafe suñu diggante ak wayjur yi am na ci jur yow yooyu boo leen gisee ci daara ji rek dañu am lu leen naqari sàllaaw saa buñ tegee seen tànk ci barab bi jàmbat si moo leen indi ci kaw euh, ñàkk déggoo gu néew goo xam ne mënta ñàkk ci daara ci diggante ab dong ak ko ko jàngal du jarul ñuy tudd aw tur waaye fan yii rek gaar nañu am na ci jàngalekat boo xam ne jubbanti kam doon jàngal tax na aw tàngoor feeñ seen diggante la ko gën a fajee mooy ne coow dem wuti aw sémmiñ ñëw ne lay jëflante ak seen waaw ku ne xam ne ne loolu bu ci ndimbalul yàlla andul woon lu ne mën na cee waaye ci barkeb sëriñ bi ak sutura su suñu borom yàgg suturaal borom barab bi tax na jàmm mujj na ci ci jàmm waaye nag la jàmm ja jurit bu ñu sañoon du demee noona te mooy daal dinay jël xale booba yóbbu ko ci beneen barab te diisoowu ci yëgoowu ci waxtaanu ci te loolu it bokkut ci te ñëpp ci ñeen koy def ñu tege ci aw yoon lay doon maa ngi leen di séeral yéen wayjur yëpp ne na ngeen xam ne daara ñetti gone yi ñoo fa nekk décision bu ñu jël ci téléphone bi nee na képp ku fi indee ci téléphone bi biir daara ji ko boo ko fi indee dañ koy nangu te yow da koy yéen way jur yëpp na xam ne ñett yi ñoo ne ci daara te kenn ci yéen xamul kan moo ciy doomam na ci donga boo xam ne bu yëgee ne sëñ daara bi yónnee na bi yar moom day daal doy la sëkk yónnee day daal na lañ ko sant ba keroog mu ca nag ñett ñooñu da ci am koo xam ne moo gën am ci ku tane am ci ku yées ki ci gën mooy ki nga xam ne bu yëgee ne sëñ daara bi yónnee na bi yar moom doy na noo gi rek yëg gi rek doy na day daal di ne ci lañ ko sant ba bam cee noppi ci gën am koo xam ne nag yëg gi doyu ko faaw mu gis ko waaye moom bu ko gisee teg na caaxaan ji suuf ne lañ ko nekk loo kookoo ci tane am ci kook nag yëg gi doyu ko gis gi doyu ko faaw mu mus ko ba xam ne sëñ daara bi këf mu door koo mu door def lañ ko sant kookoo ci yées mus boobu nag mboolem ku xamum njàngale xam nga ne jàngale aku tàngoor ñoo mag ñoo ñoo mas a ànd jàngalekat bu mu ma doon léeg-léeg am na tàngoor bu koy gaar tey sababoo ci biir liggéey bi tàngoor woowu nag bu ko gaaree ndimbalul yàlla rek la jàngalekat bi am ànd ak sagoom ba tàngoor ba giif mbaa la ko may daan dafa ëpp léeg nag jamono bi gone googu di mus te doon ku dëgër bopp ku yées gi bu fekkee sëñ daara ba ci wenn tàngoor yi mën naa tax mus bu ëpp tàngoor yi mën na ko puus ba mus bu mus boobu nag mooy indi léeg-léeg juunu yu juunu yi waaye lu mu ci mën a doon buñ sañoon way jur yi di ci jëflanteeg nun ci sago ndax jàngale daa mett amu tàngoor kuy jàngale ku ne xam nga li may waaye nag nit la muy liggéey rek ca lay juume kenn ku ne li ngay liggéey ci la la njuumte di fekk waaye saa boo xamee ne am nga loolu naqari jël sa doom te fekk sëñ daara ba sonnoon ci coono boo xam ne bu doon téeméeri juróom-ñett fukki jàll na mu tàmbalee séntu mbégte mu ko yàlla defal ci gone gi nga ne ko coppet ci loxoom yóbbu feneen loolu ku ne neex na ci sëñ daara ba it wax na la wuuteeg la ne ci moom noo ngi ci bàyyi loo xel way jur yi bu baax ngir yàlla kooku yi ma leen di wax loola mu mujj xew ci moom la ca bàyyam doxale mooy ne ko cas yóbbu feneen waxu ci ak dara borom daara ji waxu ak dara jëwriñu daara ji néewu ko tooy na néewu ko wow na te lu ko jiitu am na keneen ku mu dikkoon def noonu ci koo xam ne ci ay kilifteefam la bokk te noonu yi mi ngi am fépp am na ci ñooñ noonu lañuy la ñuy doxale am na ci ñooñ dong bi day jàng ba mokkal tari alxuraan ju rafet duñ ko bàyyi mu jàng xam-xam mbaa bu ko tàmbalee tuuti ñu ne ko cas yóbbu cas googu léeg nga seen koo xam ne day ñëw moom diisoo si ba yóbbu ko te loola néexul suñ daara léeg nga seen koo xam ne moom diisoo ko sax du ko defar fekk moom da ko daal di jël noonu yóbbu ñaar yëpp noo ngi leen di seeral yéen way jur yi ne noo ngi jàngonte moom ci biir barab bi te buñ sañoon nag way jur yi bàyyi ci xel ndax lu metti suñ daara yi mooy jëliinu gone yi ak yàkkamte gi ak jël gi te nëppuñ ci ñoom ak fu jafe-jafe amee rek ñu daal di jëfandikoo aw tàngoor ak ñàkk sago doxe neneen nu bukkut ak na nga xam ne noonu lañ baaxoo woon a doxe noo ngi ci yelwaan way jur yi ñu gën cee bàyyi xel bu baax te yàlla rek tax li tax mu mat a rafetal mooy nit bu lay jëfal te yàlla rek soo ko dee wan ne maa ngi yëg jëf ji da koy soññi waaye boo mele ne ku yëgul la muy def nag mën naa mujj dem ba dugal ci moom ak yokkat mbaa ak tayel mbaa taxawaay bu des ca nam waroon a amee ndax kii bàyyam njàng mi ñëru ko bàyyam nangam nangam dugg fi génne fii te loolu lépp lu ko indi mooy taxawaay wayjur kon yéen wayjur yi nun njàngalekat yi ak dongay daara yi nun ñëpp noo bokk siq daara ngal la kenn ku ne ci nun nag góorgóorlu ci rafetal bu baax ba ab cëram ci daara mu mën caa jot jotin gu sedd xol jàngale daa amul yoon jàng amu yoon jàngulu amu yoon kenn ku ne ci ñun nag góorgóorlu ba tege ca yoon bu fekkee xam na ko bu ko xamul na ko laaj waaye xam ngi ak jéem gi góorgóorlu jëm ca tege moom mënta ñàkk tawat yi ñuy tawat nag na ngeen ni ci dimbali bu baax te yàlla tax ndax lu ñuy gàllankoor la sëñ Muntaxa ne na fi léegi nee na jël nañ ab dogal tey ne képp koo xam ne yaa ngi jàng boo fi indee téléphone buñ ko gisee danañ ko nangu te buñ ko nangoo doo roo ci jot loolu léegi la ma dab ci biir wax ji nañ ko bàyyi xel yeneen barab yi ci des yépp it ña fa nekk ginnaaw gaaral nañ way jur yi li ñu war a gaaral décision bu ci war danañ ko jël waaye buñ ci mën a jël bu mu bett way jur wa ndax déggoon na njàmbat la fii kon nañu ci dimbali téléphone mi ngi ñuy gàllankoor bu baax baax te gàllankoor bi jàngkat bi moo koy njëkk yëg ndax jàng alxuraan ba noppi rek tari naa kaamil gëguma wala jàll naa tekkiwul ne rek sa aajo fajo na cent pour waxoon nañ leen fii ne alxuraan baax na lool waaye alxuraan yi kese caaya ju amul ñor la la koy téye ci ndigg la ba du wàcc nag mooy xam-xam caaya ñor ku ne na ne néexut a sol mbaa boog coono lay àndal koo dajal ba ko jox ñaar loxo moom musiba dama te mënoo foo jëm di meebu la la koy téye ci ndigg nag ba wàcc te doo meebu doo yëg mooy xam kon xam-xam moomu képp ku ci na dinañ dimbali may nu ba bu mu fi mënta jëlee lu ne gàññ itam mu fexe ba dañ dañu réer ba xam li ko yàlla digal ak li ko tere noonu koy yelwaan way jur yëpp ngir yàlla lii lay war a sóoli lii daal bu fekkee fàttiwu ma dara mooy njàmbatum waa Daaru Xuduus di njàmbatum Madiyana di njàmbatum Tuubaa Mbul la ca dolliku nag moom mooy noo ngi leen di seeral ne jàngalekat yëpp noo ngi góorgóorlu ci liñ digaale ak yéen di def seen kem kàttan kon yéen it na ngeen leen nu jàppale na ngeen ba liñ lii tax sunu liggéey mën a yomb ci nun way jur yi dimbali ñu ci bu baax baax la mu mujj nag mooy noo ngi sant bu baax daayira bii di Xudaamul Diin Islam ci ab taxawaayam ci daara Sëriñ Habib yëpp di dellu di santaat ci biir cant googu sëñ Aboo Mbàkke gelongal ak mbooleen ñi mu àndal liggéey bu rafet bii nga xam ne daaw la ko tàmbali woon ngir yëgoon ne jàngalkat yi mat nañuy bàyyi xel ñoom ñu di leen dajaleel ay ndimbal yoo xam ne saa bu événement juble jub seetee dañ leen koy jàppale ñu di ko boole ci ñu boole ko ci li ñuy ndimbalikoo loolu ñoo ko ci sant ci turu daare Sëriñ Habib yëpp di ko sant mboolem ñu ko ciy jàppale ñëpp te di leen ñaanal yàlla mu fay leen ci aw noo ngi leen di di leen siyaare ci turu sëriñ mi nga xam ne mooy jëwriñu way juri ndongo yi siyaare bi kañ ci jiital noo ngi jiital seex si sëriñ Mouhamadou Mbàkke mu yàgg fi te wér lool ba li mu leen lislaam parce que yéen liggéeyal maamam suñu borom jàppale ko dimbali ko ba mu xàggale ko ni mu ko bëgg te ànd ko moom. noo ngi leen si waat di siyaare wala wala di siyaare njobootu kër Serigne Habibou Mbacke gépp tàmbalee ko ci Serigne Cheikhouna mu jaar ci Serigne Bassirou Rokhaya ba ci Serigne Bassirou mi nga xam ne mooy jëwriñu daara yi ak sëriñ Mouhamadou Lamine Bara imam mu baax mi. noo ngi nun booy ngi leen siyaar leen sant leen xamal nun day suñ xol seet na guy ndax yéen li leen war lépp def ngeen ko nun ñii nag ma daa am des ci nun nun way jur yi léegi nag man samay wax maa ngi koy jëmale ci soññee rek nag soññ way jur yi bu baax a baax a baax ndax way jur yi dëgg la alhamdulilah taxawaay bi ñu ngi ci waaye nag buñ sañoon mu gën a dolli ko bu baax a baax a baax ndax nun daara ji programme bi baax na ndax kenn ku ne gis ngeen fii nu nekk ni ko liggéeyee bi nga xamante ne yàlla dogal na euh, sëñ Basiiru Mbàkke mu baax mi te bëgg lu baax dafa waxoon ne maanaam léegi daara ji dama ko bëgg a tëj su ma ko tëjee dongo yi dina ci biir way jur yi bu ko defee léegi yéen seen bopp nag maanaam léegi ñu kenn dërëm nag moom fayewuñ kenn waaye nag dafa am loo xam ne nag ñun ñii la war loo xam ne nii mun nu ko gàlliku muy seenu dund nun la war dund boobu nag yaa yëg yëg nañ ne ñi ñi nga xam ne ñoo ne ci yi ji nga xam ne jëriñ ji fi ne muy Sëriñ Muntaxa ak ñi mu ko séqal wax nañ ne dund bi daal nim sooxe na lool lool lool ndax añ bi taxu ko mel na war a mel reer bi nag moom kenn waxaale ko daanaka loolu nag ci nun ñii la nun way jur yi nan gën a doolee takku pasteef bu baax a baax te xam ne ñii nun doom la ñuy dimbali léegi képp koo ak ak dëkkandoo yi nga xam ne ñu ngi fi te seen doom néewuñu fi sax tàll na su loxo daal képp ko xam bëgg nga lu baax nu bëgg xéewal yi nga xam ne mooy ñëw xéewal yi nga xam ne mooy ji nañ koy doolee fonk bu baax a baax a baax waxoon nañ ko waxaat ko fi te léegi nag ku ne xam na ne maanaam léegi daara ji nii nii ñu ko programme nii ñu ko defee nga xam ne maanaam donga du génn jëm fenn loolu ñu ne ci biir la ca baax mooy nun way jur yi nga xam ne ak maanaam léegi dund bi dong dong la nu sase nu war cee góorgóor lu man guddi ak bëccëg léegi nag noo ngi sant bu baax a baax di ñaan sa sa sa di ñaan di ñaanal sëriñ sëriñ naa mu yàgg fi ak njabootam ñaan sëriñ Basiiru nga xam ne mooy jëwriñu kër gi ak jëwriñu daara yi ak njabootu sëriñ bi Mbàkke gépp ah damaa bëgg lim sax xam naa su ma duggee ci lim damay am ñu fàtte te li nga xam ne mooy tënk bi daal mooy maanaam mboolem koo xam ne kii sëriñ Abibu Mbàkke moo la joboote noo ngi lay siyaare di sant di la gërëm ak ñi nga xam ne sëñ Abdoulaye sëñ Abdoulaye Majid tam maanaam mooy seen wooy mooy leen njaboot noo ngi leen ñoo ñëpp ñoo leen siyaar di leen gërëm ah di leen xamal ah, sant bu baax ah loolu xam ne nag maanaam sëñ Muntaxa wax na ko mu jëm ci daara ji nag ci wàllu rëq-rëq yooyu moo ci am ci wàllu xéewal yi nga xam ne xéewal yi mënut a ci a doolee nañ ci gën a doolee góorgóorlu baax a baax a baax a leneen daara ji moom kenn ku ne xam ne ne nam doon doxe ba léegi moom dox ndax léegi ca fondement ba la suñu Habib suñu Habib Ibrahima mi nga xam ne moo ko moo ko moo ko fondement nga xam ne maanaam kenn ku ne xam ne ne maanaam daara ji tey mooy ab toolam moo di ko fii nun dëkkandoo yii nan xam ne am nan loo xam ne ni tey xamuñu ko ba tax na maa ngi noo ngi tàll suñu loxo képp ko xam ne ki sa doom nga ci biir daara ji ak ku sa doom nekkut noo ngi leen yaan ngeen dimbalul ci wàllu xéewal yooyu nga xam ne moom la sëriñ bi xaw a tawat te bu nee xaw naa manqué rek dafa manqué man xam naa ko te daf ne xaw naa manqué kon nag léegi noo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaanal nu teew fi na gën déwén ndax daara ji de daara la jooxee ni képp ku fi nekk bañ def sew li war def sew ba bàyyi la ba nga génn soo génnee foo dem loo fi jëlee koo ko won dana la xoolaat ci kaw ma de waxoon naa ko fi naa ko waxaat fii am naa ko waxee ni bind na génn xasida bind na ko sëñ Moussa Mohamed muy xasida Taysiir keroog ba ma xàggee ba ma ko joxee ba ma ko xoolee ba xàggal dafa waa daam ma nekk ko Mbàkke mu ne waa kii fu mu jàngee bind ma ne ko daara sëriñ Habibu da ci la nekkoon mu ne ma waaw kay looloo mën a nekk kooku kon kooku xam na ne daara ji moom képp ku fi bawoo da nga mel melekaan woo xëy ni kenn ku fi yëgu doon mën a mel nga xam ne loola ci misaal kon maanaam wax bu wax bu wax bu am wax wax bu am maanaa la bu jóge ci moom ah léegi nag xam naa sax nun wax moom dàq nañ nu ko ndax euh, yéene gi dafa ëpp man ngee wax waaye nag suñu xol sedd na nun way jur yi nan gën a doollee góorgóorlu bu baax a a baax tey ñaanaat teewaat na ngeen déwén fekkee mu rafet rafet barke sëriñ Modou Moustapha barke sëriñ Mbacke Mouhamed yàlla saa borom defal jàmm te suñu borom sax lu ci dégg sëriñ bi ba faaw barke Xaadimu Rasuul a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin al-habib wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa mati wa man iqtada bi xadihim ila yawmi din bokki tadi fi teew ak ñi niy déglu ñu ngi leen nuyu bu baax te di leen siyaare te di leen baalu xaq te di leen ko baal te di leen ndokkeel bu baax ci teew gi nga xam ne teew ngeen ko ci béréb bu tedd bii ngir wuyu si waret sunu borom bi nga xam ne dañ leen ko woo ngir liggéeyal téere bu tedd bi di alxuraanul karim ci toolub Seex Ahmadul Xadim ñu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax te xam nañ ne sax ñëw gi ngeen ñëw ak coono yi ngeen ci toggool ak jëf yi ngeen ciy jëf yépp seen bopp ngeen koy defal ndax ku xam yiw wi ci ne danga xam ne jar na jóge fu sori di dox ngir fekke si ko waaye nag teewut gannaaw dañoo woote ngeen wuy si nun ñi woote dañ leen sant bu baax te di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla mu day leen ceeg ngën ji ak fay te si eh, ayubu leexi mbàkki mi nga xam ne moo tax ñu daje ngir delloo ko njukkal ci liggéey bu rëy boo xam ne daf koy liggéey ci lislaam bi liggéey ko ci toolub sëriñ bi liggéey ko ci njabootu lislaam bi yépp loolu la nga xam ne eh, eh, xemmem nañ ko ci aw yiw ci ku ko ca dab di ko ci jéem a jàppale lépp yàlla nañ ci daje ak moom ci barke si Amadou Xadim ñi ngi dogal ngant di jégalu ci kàddu gi nga xam ne moom lañ ñu jox muy kàddu daayira bi nga xam ne moo lënkale ñi jaaroon ci daara Seex Habibullahi Mbàkke te man ma bokk ci dayra boobu ñu ngi ciy jiital eh, di ko waxee ci turu Serigne Mamor Say mi nga xam ne moo jiite woon dayra bi ñuy wax xuddaamu diinu islaam àndoon caag mbokkam ma di sëriñ Jugo Silla ak Serigne Abibullahi Saaxo ak Serigne Abdul Ahad Mbacke Habib mi ak Serigne Mbacke Abdourahmane mi nga xam ne moo doon def conférence bi ak eh, seen sëñ eh, Seex Kajoor mais ñu ko àndaloon juróom benn ñooñu dayra boobu di xuddaamu diinu islaam ñoom ñoo ko sosoon doon ay jàmbaar yoo xam ne it liggéey nañ ci liggéey bu rëy rëy rëy te daayira boobu it la taxoon ñu sos ko ñu ngi ko sosoon ci teewug si Abibullahi Mbakke bañ ko daan sos it dem nañ ba ci moom ñu waxtaan ci ak moom xamal ko lañ ca bëgg mu ànd ci ak ñoom ndax dañ koo xamal ne ko day gis nañ ne liggéey bii bañ doone ay tuut tànk ne ci sa loxo di jàng ba nëgë gis nañ ne mosoo cee woote mosoo cee santaane dara da nga cee nekkal yàlla rek loo ci waaye jox nga boole nga boole ko li nga am liggéeyal ko ci yàlla nun nag bañ fi jaaree ba jóge fi len fi jële niñ xamee ab dayoom nam toll gis nañ ne day jaadu na lool ñu jéem a wër suñ bokki daar yi ñu nekkaloon ci daara ji kenn ku ci ne lam man ñu di ko dajale lu ñu am nu mu toll ñu ñëw jox la ko nga defal na ko ci daara ji ah doon ko defit defin wu rafet ndax ñoom dañ ko waxoon ne nun day duñ fekk magum jëmm mu taal ab taalam di ca liggéey la mu cay liggéey ñëw naa ko dañuy taxal dañ lay taxal ak mat ba noppi di la sàkkal foo koy foo koy xambe ci taal bi noonu daal li ñuy def mooy dañuy ñëw jébbal la ko yow mi nga xam ne yaayar sab taal yoway xam matt gi foo ko ca soxlaa nga xambe ko foofa loolee di liggéey bu am solo sëriñ Habibu it mbokk yooyu ñu wax ci njiital sëñ Mamoor Say liggéey boobu ñu doon liggéey bi nga xamee ne ñi ngi koy jébal moom itam mu daan ci jëfandikoo ak maanute goo xam ne jéggi na dayoo ndax sëriñ Basiiru Mbàkke Habib mii mi ngi dégg sama kàddu mi ngi teew ci jataay bi te du ma weddi amul benn yoon benn yoon boo xam ne mbokk yooyu dajal nañ lañ am lépp ñëw jébbal ko ko mu am looba mu nangu ko ci loxoom waxuma laa di ko def ci pootam daf leen di sant gërëm leen kañ leen ñaan leen ba noppi ne leen dem leen ca Basiiru ngeen jox ko ko ne ko mu def ko ci daara ji loolu yoon wi ñu ko matee jébbal loolu la leen wax sëñ Basiiru mi ngi ni toog moom itam saa suñ ko joxee mu woowaat ne ko doon liggéey ñu waxtaane ko ba xam fan la gën a jekk ci biir daara ji ñu def ko fa loolu lañ ko jàppoo di ko jàppoo ba eh, biñ mujjee gëstu seen liggéey seetlu nañ lu war 20 millions yoo xam ne ñoom ñoo ñuy liggéey nañ ko tàbbal ko ci biir mooy atulaabul fawsil xasim ñoom itam muy tuur tànk yi newoon ci biir daara ji di fi jàng sëriñ bi yor seen lépp di leen jàngal di leen yar di leen taxaw ñu dem ba ci biir nag laata ñu jóge ci daara ñu gis ni day sëñ Abibu mii day nañ ko ak cant goo xam ne di ko sant ci suñu làmmiñ rek wala ñu ne ci daara ji di jàng ay kaymil rek du ca doy dañ ko bëggoon defal bis waaye bis boobu nag bala ñu koy def it dañuy dem laaj ko ci ndigal yàlla dogal ñoom itam ci kanam sëriñ Habibu lañ ko sose woon dem laaj ko ndigal mu jox leen ci ndigal ba noppi jël tur woowu tudde leen ko loo ñooñee nag ñoo jàppoon bi bii tey nga xam ne bis boobu moo doon bis cant gi saa su masaan ñëw dañuy dem ca kër ga dajale seen lañ am lépp yendoo faa jàng alxuraan yendoo faa jàng xasida def seen waxtaanu diine buñ noppee la des ca lañ am ñu dem ànd ci kanam sëñ Abibu jébbal ko ko mu ñaanal leen gannaaw bi nag ñooñu yi nga xam ne mooy tànk yi newoon ci biir daara bi nga xamee ne ñoom ñi sosoon dayre boobu ñépp ndax fàttaliku naa ne jamono yi muy dayra bi ba ba ci jëkk defe naa kii ñuy wax euh, Mouhamadou Touré ñu ni ko wax Pape Touré mu nekkoon ci daari jamono yooyu moo ko jiite woon loolu liggéey nañ ci liggéey boo xam ne bi ñu demee ne ba nga xam ne ñoom ñëpp soppiku nañ ba ñibbi ci kër yi lañ xalaat ne ko gannaaw suñ maamo tey ñoom ñi dañoo ñu jaaroon ci daar ji ba ñibbi sos ab daayira ñoom ñi dañoo son daayira bi ci biir daara ji léegi ñoom ñëpp ñibbi nañ nañ wëlbatikuwaat boolewaat ñaari daayira mu nekk benn loolu moo tax ñu wëlbatiku jël genn wàllu turu xuddaam ak genn wàll tulaabul fawsil xasim def ko muy turu daayira bi muy xuddaam dil islaam wa tulaabul fawsil xasim kon daayira boobu nañ ñépp xam ne daayira ba mag ñi yoroon muy sëñ Maamoor Say jiitoon ak sëñ Juga Silla ak sëñ Habibullahi Saaxo ak daayira bii nga xam ne moom moom la papture moom jiite woon ak mboolem ñi ko ci wut ci gannaaw bi ba ci aboo gelongel mii ko jiite tey daayira boobu képp koo xam ne yaa ngi am yéene yi liggéeyal Sëriñ Tuubaa liggéeyal diine lislaam liggéeyal sëriñ Habibu bu toogoon nga am yéene yëkk si addi jox ko na nga xam ne dayee boobu itam jëpp mooy dajale as tuutam ñëw lii doonoon bëggu sëriñ Habibu ñu jàppale ko ci ba eh, daara ji gën a jëm kanam daara ji gën a ci condition yu leer daara ji mboolem luy itam ci ay dëkkuwaay ci ay mbaar ci ay eh, nju eh, jàppale gi ñu war a jàppale ñu fiy jàngale loolee ñoom ñu mën koo taxawee kon ñi ngi soññi waat suñu bopp bu baax a baax a baax rawat na ñi nga xam ne ñooy mag ñi ndax bi mu te mag ñi it ku ne xam ne dañuy dem ba amee ak tële amee ay wéradi yoo xam ne nañ ko daan defee di dox tànk ak tànk di dem ci kilifa yi duutuñu ko man waaye nañ xam ne dayre boobu ak dayre bii ñoo dañ koo boole muy benn képp koo xam ne daa nga yëkkati saw ñaq di ko def ci liggéey bi ngir eh, njukkal sëriñ Habibu bis boo déggatee bis bii wala nga gis lu ci bokk na nga xam ne ba léegi liggéey boobu benn liggéey la ndax gis nañ ne eh, eh, mag ñi ko daan dox amatuñ wér ak jotu di ko dox waaye nag dafa mel ne bari na ñu ñu daan dem ñoo xam ne dañuy mel ne bu ñu leen gisul rek dañuy jàpp ne liggéey boobu dafa taxaw fekk na liggéey boobu taxawut ñu ngi leen koy bàyyiloo xel bu baax a baax a nga xam ne dañ ko wiise muy fukki fan ak ñett ci tabaski ñu jàpp ko loolu ku ñëw ci yow it saa su weeru tabaski teroo war ngaa jàpp ne am na bis bu ñuy njukkalal sëriñ Habibu boo xam ne lañ ci jublu mooy jàppale ko ci daara ji nga xam ne waxoon na ne bu amee benn xememteef ci àdduna mooy daara ji daara jooju ñu jàppale ko ci ba fu mën a nekk muy dox na war a doxee kon loolu ñu ngi koy bàyyiloo xel mbooloo mi bu baax a baax a baax ñi nga xam ne it ñoo jaar ci daara sëriñ Habib yi xam ngeen ne sëriñ Habib yàlla ko taw fee xale fépp fu mas am suuf lam fay jëkk a def mooy daara ak jàkka bu dee Madiana bu dee Darou Khoudoss bu dee Touba Mbul bu dee Mbacke Kajoor bu dee Jantul Mahwa fu fi waay mën a nekk na nga xam ne am nga am nga am war ngaa delloo njukkal sëriñ Habibu ak ci koo mënoon keppaar koo mënoon a nekk loolu dañ ko bàyyi xel ndax yooyu yëpp ay banqaas la ci biir daara ji te ku ne xam ne ne banqaas datt ba ko jur bu amutoon banqaas boobu du am datt boobu it bu amee benn gàllankoor da banqaas ba am gàllankoor kon gàll banqaas boo ci mën a bokkee ci biir daara ji di fa jànge na nga xam ne war ngaa am yéene yi bokk ci dayra bii te dayra bi li muy laaj bariwul 6000 francs par at loolu mën ngaa bokk ci fukki dayra turtee nga mën ko kon ñu ngi tàllal loxo mboolem ñi nga xam ne ñoo aj ci daara yi aj ci daara si Habib yi ñu xam ne fu fi waaye mën a bokke ci banqaas daara si Habib yooyu war war warteef la ci yow nga dagg carte membre ci biir mbooloo mi te 6000 francs yi ñuy joxe ci par at nga fexe ba di ko joxe ak foo ko mën a jaarale ba mu egg ci daara ji ndax mboolem ñi aj sama daara daara ci Madiana daara ci Touba Mbul daara si bi sax foo fi jaar rek wala nga gis kenn ku bokkoon ci daara bi wala Serigne Baara mii nga xam ne moo jiit jàng xam-xam bi bunt yooyu yëpp ba si seex naa mi ne ci kër ga foo fi jaar ngir bëgg a def soxla ci biir daara ji incha allah loolee nga joxe dana egg si ñi ngi sant it bu baax a baax bokk yi nga xam ne ñi ngi bokk ñaari daayira yooyu te li nga xam ne moom lañ leen sase muy warte ku bokk ci biir daayira bi at mu nekk dañ koy matal sëkk ñi ngi leen ci sant bu baax a baax te di leen ci soññi tey ñaan suñu borom nangul leen seenub liggéey te gërëm ko te barkeel ko ñi ngi sant it ñi nga xam ne ñoom dañoo matal seeni sas ba noppi nag wëlbatikuwaat jaayantewaat yeneen ak yeneen ak yeneen ci biir daare ji te loolu suñu laat incha allah kàddu bu ñëwee dana ci jaar ñooñu itam ñi ngi leen di sant bu baax te leen xamal ne seen jëf gis nañ ko tey yàlla moo gën a gis seen i jëf te insha allah dañ leen ko dencal foo xam ne yàqu du fa àgg waaye ñuy soñ ci bokk yi daara ji ne koo ci xam ne jaayante yooyu man nga ko de daara ji ajowoon na ko lool ndax daara ji moom ay itteem daanaka mën nañ ne du jeex waxtu wu nekk ay projet yi ci kanamam yoo xam ne maanaam lu ñu fi indi rek xaj na ci dafa tolloog lu ñëw dañuy nattale lam man ci biir daara ji ñu def ko ca waaye xeebut yéemut ci niñ ko daan waxee sa kàttan may na nga mën a jaayante ci li nga xam ne mooy tey mbooloo mi ci tey daara ji loolu itam ñu ngi leen ci tàll loxo bu baax a baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam ne it ñi nga xam ne ñooy joxe seen i alal di ko jaare ci bunt yi nga xam ne ñooy laaj di daal seen xel ci ne leen li ngeen di joxe day mu ngi egg ci biir daara ji ndax man kenn laa ci waa daara ji maa ngi ci biir daayira bi waaye kenn laa ci waa daara ji amul benn dërëm boo xam ne nit mën na ko joxe ci biir daayira bi te egsiwul ci biir daara saa suñ noppee ñoom li ñuy def mooy dajeeg sëriñ bas ak mbooloo mi waxtaane ko xool daara ji bu dee daara Touba Mbul bu dee daara Touba Darou Khoudoss bu dee daara Touba Madiana bu dee Mbacke Kajoor bu dee Jannatul Mahwa ñu xool waxtu wu ne daara ji fañ toll lañ gën a aajoo ci loo xam ne ñëpp maase nañ juboo ci ne fii la war a dem ñu jël loolee ngeen dajale defal leen ko foofa te loolu kenn ku ne xam na ne euh, euh, organisation la kon na ngeen dalal seen xel ci ne li ngeen di joxe mi ngi egsi bu a dañuy wëlbatiku di sasoo ak di jaayante di ca dolli ci li ngeen leen jox waaye ñu amuñ ci benn soxla kon loolu itam dana baax ñu leeral ko gannaaw ñun kenn lañ ci daara ji te daara ji li ñu dajale day egg ci noonu loolu itam faaw ñu leer leen ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéglu kàddu gi ci yëkkati yi ñu ko yëkkati ci kanam suñuy kilifa lu ci jub ci ndimbal suñu borom la lu ci dëng it ci suñu doyadi la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa